déedéet waay. Hmm. sagab kan la ma sa gaañ wala mu yóbbu ne ar wala mu kaaw nit amul fi ne ma ko door mu joxe mu jox ma boppam. ah eh. si yaay dégg. Uh-huh. kon neef yi naan damaa a dóor ak mën a xeex du benn sagab bëgg na xeex mais mënul xeex te bu jour baa naa ko woon na mënul xeex. te su jour baa su bëggee dina xeex su bëggul dina na man ñëw si làmb ji laa koy sant. dina ñëw di ko ñaar yàlla mu am wér. temps yi nag ñoom dañoo neex la de Kër Falaye neex la nañ de ñu deret bëgg nañu xeex mën nañoo bëre. loolu lépp xam am nañ gàllaaj toppatoo seetaanu ma leen sax wallaahi asim Kër Falaay seetaanu ma leen te bu ngoon jotoon nii bu doon équipe dañ ñu ko may ñu ànd doxantu ndànk takk ngeen mu dem samp fa. waaw ah. mën naa faa bàyyi ba timis te duma daanu. déet nooy def ak ñooñu ña fa ne. dama dul seen morom. seen man sax su ma koy wax bàyyam laay moromanteel. bàyyam ban. Ama Balde teel waaw teel wax Ama Balde kay. <laughs> mais bàyyam la. waaw bàyyam papam la Ama sama morom la moo tax ma ko chaque jour bàyyam di hésité foofu mais waxuma pour papam bi gaañ ne ko yàlla ko yàlla yam ah. mais Ama Baldé laay sonni wala xel wax ci dama ne te du maag Jacob Baldé du yàgg Jacob yàgg Ama la maag Ama la tere ne la du Jacob Serigne Saliou Mbacke te na si combat bi bu baax a baax ma paree si booy bi kan Ama wala yaa ngi nii di ko di soo xaran sama xol bëre moo laa bëgg billaahi wallaahi rajo xaran barki Serigne Saliou maa ngi dàq bëre sans nag moo ñëwul mais maa ngi dàq bëre junni ama xam na ko maa ngi dàq bëre junni yoon gis na ma bëre ba taay billaahi Lamine Tine bokkul seven su ma koy wax nag nit ñu ne jaam ay waxin la mais dara jëy yàlla pomme yi mën nañ ko trop man de Jacob li ma jaaxal ci moom ndox bu sedd buy rey keñ la maanaam dafa am est-ce que xam nga ay qualité euh, Jacob. parce que du ñàkk tey. défendre daal laa xam moom. Ah. code 5 bi moom mën na ko. gañ baa ah. niil. man bëri bëri 32 minutes 40 minutes ba nawet naa ma taxaw une minute ma ne ko da nga mos a bëri combat une minute. Jacob ay 2 heures de temps lay bëri. day bëri ba temps bi jeex. géej waaye la mujj de diggante ma papa boo dine. digg nga la fa xew làmb jaa yàqu. waaw ah. moo am ndam dara amu fa. non moo am ndam. papa boo dine combat bi mu bëri nii mosut a bëri combat mel noonu ci géré ci fulla ci fayda ci raak bëree bëri bu jaar yoon. Mhm. sax même la kon tey Jacob bu taxee di wax day sóob cata ñëw rek ndok waaye Papa Boy Djiné kooku dafa def licencié lépp da ko def te Jacob daanu ko lamb jaa yàqu lamb jaa yàqu te bu jour ba damay jekkal yi damay daan dama koy daan ba toog ci kawam. barki rasulaay. Hmm. waaw lan nga bëgg euh, tey euh, sa digganteeg Jacob arbitre bi sifflé lan lan nga bëgg mu wala ci. non moom mooy xale. waaw ah. man am lu ma fi. nekk yéen ñëpp ay xale ngeen. waaw mooy moom moo gën a nekk xale ñoom nee mag lañ moom moo gën a nekk xale. ñu ngi dañ koy rek. da nga maa ngi koy ko xool rek. su xoolee mu xam ne fi ñàkk fay rafet naa dama ñëw fekk ko fa jëlee ko fa ñibbi parce que damaa yaakaar dama ko dem xelkom. yaa war ubbi Pikine ren ay ubbi dërëg man dërëntuuma man ak Jacob Baldé laa amal ko mbaax di ngeen dër bi de ndax Balla Gaye Boy Niang ngi xaar loolu lépp du dër ah. Balla Gaye Boy du dër bi la borom 14 borom 14 13 victoire victoire du dër yéen Sénégal lañu bàyyi caaxaan yooyu Boy Niang Balla Gaye du dafee lam bi wax la nii ñu booye leen mais loolu du dër bi xam nga la mooy dër mooy ñaa ñu daje xaw a tolloo ay niveau ay rëg rek saa Thiès combat yu dër la hmm. yooyu ay combat derby la quoi seen victoire ak seen tolloon niveau comme Sa Thiès bi ñu bëree yooyu d'accord naa derby la hmm. mais koo xam ne yow ay victoire am ak say défaite ak say lépp boo ko boolee ay victoire am ak loolu mu nekkee derby Balla Gaye du ma. mobilisation naka nga nar a ñëwee. waaw a insister nag bu baax wala ma bëgg gars yi